mi ngi doog commencé. wax laa lay wax. kon defet moom mënu nga ko defaraat. te defet boobu caaw solo. Ama Baldé mi waa ñëw. dafa mel ne Ama na de. dafa mel ne Ama Ama yegsi na. waaw mu mel ne Ama mu mel ne Ama yegsi na gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu ndeysaan gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu ndeysaan parce que Pikine niñ ko teeroo waxoon nañ leen ko sànq la tànk bi nga xamante ni jox nañ victoire bi Ama Baldé ngir daw nañu ñoom ñëpp ñëw fi nga xamante ni moom mooy buntu kër Ama de ne ko liñ la yabee woon gannaaw ba matale nga ko ñu nit boo ñëwee ñu tëlee suñu boor lu mu jar dinañu ko def ñu la kañ dina dinañu la jiiñ dinañu la jaajëfal Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu gis ngeen ko noonu l'arrivée explosive d'Ama Baldé fii ci seen kër di oh. nga waaw waaw yàlla bu ñu ndam di ump yéen ñi seetaan ci direct bi tamit yàlla bu leen ndam di ump tey yàlla ndam jaa ngi nii la mujjee yàlla may na ndam Ama Baldé yàlla xaj na ko Gris Bordeaux mais nag il n'a pas démérité moom it li ñu ko yabee woon def na ko mooy bëre na mooy xeex na. mooy jàmbaare na def na lépp li nga xamante ni moo ko waroon mais nag yàlla da koo xañ nga santat yàlla bu baax xam ni yàlla mooy programme noonu ama ama ba léegi ama ba léegi noonu ama ba oh, na li rëy na ndeysaan jëlama waa Pikine yi ndeysaan amaa ngi noonu amaa ngi oh. oh, noonu amaa ngi yaram lii daw yaram ndeysaan waay waay waay waay waay ñii nañu dimbaleeg seen taal taq-taq yi ama ba léegi noonu nee na leen kontaan ngeen ngeen kontaan ne kontaan na wàcc Ama Baldé ngi noonu ndeysaan drapeau AS Pikine baa ngi noonu muy wane ni Pikine a ngi nii Pikine kenn desul oh waaw kay amat la ñu jox micro bi dafay jéem a jaayante di jéem a def ni gars di def wante mënul def sax ni gars di def na gars yi ko mën mais ñu jéem a assuré rek ndeysaan mu ngi waaw waa waa këram yaa ngi nii waa këram yaa ngi nii nee ko kontaan nañu nee nañu ko rusloo wooñu nee nañu ko sagal nga ñu nee nañu sagal nga ay waay ay waay ndeysaan bi da ko jëndal mbaar yi ah sama Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi wàcc Ama Baldé ngi wàcc Ama Baldé ngi wàcc ndeysaan waxoon naa ko Boy Niang ngi noonu waaw waaw Boy ngi noonu war naa mun a ne man kay lii bettuma Boy Niang jërëjëf moom la xale yi di way jërëjëf waaw waaw. Boy Niang jërëjëf. waaw waaw war naa mën a ne ay nit bu ñu bokkee gox bokk li ñuy def nii lañu war a mën a la nii képp lañu war a mën a la ndeysaan Ama Baldé wàcc na Pokola ngi noonu Pokola ngi noonu Poko Mbama ngi noonu <laughs> la ilaha illallah Boy Niang ngi noonu Boy Niang ngi noonu Boy Niang ngi noonu Boy Niang ngi noonu ak Pape Sarr ndeysaan abu abu lii nu mu lay fàttali waaw Pikine 2012 ndeysaan Pikine buñ booloo luñ sos lañ koy am gis nga Pikine nu ñu àndee waaw Pikine bi ñu àndee si lambu loolu dafa dangereux. dëgg la loolu dafa ci open press bee ñu génn. loolu dafa xeere am na mag bu ma dégg mu wax loolu. loolu la mu ne defee benn say. xajuñu si kenn. loolu day xeere wow koŋŋ. boo xaaree. waa mais xeere gi noonu. waa mais billaay konkorong xeere koy toj. te vraiment euh, giri Ama Baldé xeer la moo tax it toj na la lu wow koŋŋ gi noonu jërëjëfati. jëfati jëfati yow ma lay convoqué tomorrow. mais mais sop tomorrow ah? Ah, sama waay la ñu koy wax Med Shop ñëpp xam nañu ko. dégg noonu. Ama Baldé ngi ñëw. ginnaaw bi mu saafoonte xale yi. Ama noonu. Ama Baldé ngi noonu. Ama Baldé ngi noonu. ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu ndeysaan oh li daw na yaram li daw na yaram li daw na yoon bi Jacob Baldé ngi yoon bi gis ngeen lii jooy Ama Baldé ngi jooy jooy Ama Baldé ngi jooy jooy faru ndeysaan li nga yabee woon def ko matale nga lépp ñoo la desel jamono ji moom moom sànq avant moo dem moo deseloon waa Pikine waaye jamono ji waa Pikine na ko desel niñ ko deselee nag mooy remercier ko ñaanal ko encouragé ko félicité ko yàlla di ko gën may ndam loolu la ko desel gis ngeen Pikine gis ngeen Pikine gis ngeen Pikine boo la gis ngeen Pikine foo tourné nit la. day daay lala xool leen lii allahu akbar yàlla mën a maye yàlla mën a maye yàlla mën a de. ëpp na tool ëpp na tool dañ naan doy na waar waaye ëpp ndaw la. gis ngeen ko noonu Ama Baldé Là, on note euh, une euh, liesse populaire euh, à Pékin après la victoire de Ama Baldé sur ki nga xamante ni mooy le troisième tigre de CAF